na ci ay député yu yëkkati ay mbir ku ci mel ni Mame Diarra Fam mi nga xamante ne dafa doon sàkku ñu respecté parité ci biir bureau bi leneen li fës ni ki démb ci assemblée nationale tribune yéene moo ko xëyee tey ak Farba Ngom mi nga xamante ne yoroon na ci loxoom lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñetti procuration yi nga xamante ne ay député ñoo ko moom te mu toogoon doon waajal ku génne rek mu woteel ko waaye gannaaw cooloole Le Soleil yéene kaay di xam ne ni kon lii di bureau assemblée nationale mujj nañ ko installé ci jàmm ndaxte déggoo mujj naa am diggante pouvoir ak opposition bi ci biir assemblée xamle bi ba tax ba yëf yi xewee ba noppi kii di njiit lu yees la Amadou Mame Diop daal dinay sàkku ci ay naataangoom député ñu fexe ba dialogue bi muy waxtaan wi nga xamante ne moom la ñu gis ni ki démb ñu daal di koy wëyal gannaaw ay jàmm moo tax enquête quotidien di xam ne ni kon député yi dafa mel ni ñu mujj delloosiwaat seen xel ndax déggoo bi am ci seen diggante ba ñu daal di samp bureau assemblée nationale bi ci boppam ci mbir mi nag las quotidien gis ni kon dafa mel ni jéggalu la ñenn ci ay député daal di def doon samp président bi ci boppam ak yenn ci ay doxalin muy xiiro ak ngaayo xeex sàndante ay butey dàgga sante mu nekkoon lu ñaaw li nga xamante ne askan wi ci seen wàllu bopp daan nañ koy mettitlu gannaaw mettitlu gi ak wat bi yépp le témoin moom ab jàngat la def muy opposition bi dafa mujj imposer li nga xamante ne moom mooy cohabitation ci biir assemblée national ndax ba ñu gisee ni ñu séddale li nga xamante ne moom mooy poste ci biir bureau bi ci boppam li ñu nemmeeku ci bureau bi moo taxit l'observateur jàpp ni liy xeeñ moom ci assemblée nationale nationale neexul ci nguur gi rawatina ndax pouvoir ak opposition bi moom daanaka séddale tolloo la ñu def ci biir bureau assemblée nationale bi Mimi Touré moom nekkuloon ci biir bureau assemblée nationale bi naka noonee sax ci assemblée ci boppam réew mi quotidien di kat ci ñàkk teewaay ki nga xamante ne moo jiite woon liste nationale bu benn Bokk Yaakaar ci installation bi ak lépp li ñu jàpp ni kon moo ko waral li ko waral Dakar Times daa dina koy dëggal ndax dafa jàpp ni Mimi ci boppam dafa nekk soxna bi nga xamante ne dañu ko naxati ci wàllu politique ki Macky Sall diggante Macky Sall nag ak Aminata Touré mbir mi daanaka mën nañ ko méngale ak ponum pir yenn saay mu neex yenn saay diggante bi daa di métti lool ba sax mujj soof waaye bi la yoon nga xamante ne ñagas na mën naa wex xat ci ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi noone la ko Walf Quotidien daa di jàngatee di dikkaat ci naka la Aminata Touré mën na yàqale ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ci biir assemblée nationale li ko waral le réveil daa di xam ne ni kon moom njiital jëwriñ ja woon dafa mel ni ku jóg fas yéene fippu defante ko ak Macky Sall foofee assemblée nationale moo tax Sud Quotidien di xam na ni Mimi Touré jamono ji mooy nekk kiy jaaxal njiitu réew mi Macky saal ci boppam ñi jaaxle ñépp ak ñi ko deful li nañu Touba ngir dem sàkku fa ñaan ci Cheikh Ahmadou Bamba moo tax réew mi quotidien ak ay ndaw yu mu yabal ca dëkk bu tedd ba dikkaat nañu ci tolluwaayub màggal bi ak wàccaay bi ñu jàpp ni kon lépp yemb na te taalibe yi ñoom wuyu si nañu dëgg wooteeg sëñ Touba bi sëñ Touba libération xëy ak moom tey dikk ci jaar-jaaram ak li nga xamante ne def na kon liggéey ci bopp bi waaye tamit ci islamique bi yëpp waaye tamit ngir umma islamique bi yëpp l'observateur xëyee tamit màggalub Touba 2022 bi mu def ci ab gëstu bu yaa ci jaar jaaru ki nga xamante mooy xalif général kullu murid ba ci sax lu ñuy waajal ak lan la mën a xaar ci màggalub ren ji tey ji Vox Populi xëyaat dem Touba wax ci exilu Amadou Bamba Mbacké ak tey ji lan la jural murid ak umma islamique bi wërngël këpp yéenekaay bi fësal nataalu juróom-ñetti xalif yi nga xamante ne dafa jàpp ni ñoo a dëgëral li nga xamante ne moom